boo xam ne dangay ñëw di wax ak secteur privé bi mel ni ku koy menacer mais le secteur privé a toujours été un allié naturel de l'État que ce soit sous ab ñooy créer emploi sax nag tey fii ngay liggéeyee nii ki ko créer état bi lu mu ko defal. dara moo jël xaalisam defar ko employé ay doomu aadama. mais kooku woo ko nga waxtaan ak moom nga ne ko saawaay au niveau des impôts et lii nga ñu amel. Mhm. léegi naka nga ko mun a fayee mu a la mun naa ko fayee nii ak nii ak nii. Parce que le souci principal d'un État doit être de sauvegarder les emplois déjà créés par le secteur privé local. Mm-hmm. ak taux de chômage bi fi mu toll. mais ba ndaw yiy jël gaal di dem. non gaal gi moom sax loolu beneen affaire la. parce que pour man gaal bi quel que soit nguur bi fi nekk. dañuy dem dañuy dem. li tax ñuy dem euh, l'Europe les États-Unis euh, constituent un très grand mythe. pour nous sénégalais mm. alors munoo wax ak kenn ba mu déglu la foog mu dem gisal boppam pour man ça n'a rien à voir ak l'état honnêtement. ak ñàkkum xëy bi. Euh, ça n'a am man gis naa fi ay ndaw yoo xam ni boo leen. dañuy bàyyi seen liggéey wala boo leen joxoon xëy ñuy fayee ko cent mille dañuy dem. foog ñu dem gis ñëwaat c'est tout mhm. c'est un mythe maintenant est-ce qu'il faut. mais ñàkk luñ def bi itam am na ci benn wàll. oui absolument Euh, euh, la pauvreté est une raison. Ouais. Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais euh, en fait, fii démystifier wu ñu démythifier. Mm-hmm. l'Europe ou les États-Unis euh, honnêtement bu fi benn nit homme politique jël engagement di wax ni que mbëkk mi mun naa ko arrêter munu leen ko arrêter. le voyage est un mythe pour l'Africain. Voilà, l'Africain a besoin de découvrir le monde, ah, l'Africain a besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, même si c'est possible via Internet, Sénégalais bi munoo ko téye bu jëlal booy Sénégal yëpp jox leen liggéey salaire cinq cent mille di nga gis plus de soixante-dix pour cent liggéenti yoon pour tukki. kon vacances citoyennes yi ñuy woote par exemple pour xale yi dellu ci tool yi du solution. ah non loolu c'est une très belle initiative parce que man dama gëm nii agriculture avec euh, son fort taux d'absorption de chômage évidemment que dañu war a commencer former nos jeunes à l'agriculture et faire comprendre à nos jeunes l'importance de la terre Euh, dans notre développement économique parce que nguur gi fi nekk bu ngeen leen dégloo ñoom dañuy wax souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire nag ay ndaw ñoo koy ñoo koy ñoo koy liggéey mbay dafa nekk lu am solo lool Euh, ba pare li koy firndeel mooy suñu balance commerciale lu tax mu déficitaire l'année dernière mooy ni que jël nañu mille soixante dix milliards jëndee ko lekk bitim réew te lekk yooyu yu ci bëri mën nañ ko bay fii alors euh, tout dépend ci ban concept lañ koy defee tout dépend ci naka la ñuy motiver les jeunes tout dépend aussi dans le recrutement bu ñu ko def recrutement ay jeunes u Pastef non non loolu amul nañ ko def recrutement jeune sénégalais yi Pastef dans dans cette rupture la li leen dese moo bëri waaw li leen dese moo bëri même bu ñuy adresser message mm-hmm. seen responsable yi tu as l'impression que le message s'adresse aux militants de Pastef alors que le Sénégal c'est pas Pastef et ñi xam euh, en fait les statistiques euh, en démocratie dëkk boo xam ni président bi il a été élu à 54,28 pour cent c'est-à-dire quarante cinq et pour cent ànduñu ak moom. c' important quand même. très important. alors ñooñu fii nguur gi jëlul en considération seeni bëgg-bëgg-bëgg ak seeni xalaat. Mm. ak seeni crainte ak seeni crainte alors gëw ma ni affaire bi dina dem yoon. réew mi waa Pastef ñoo ko gagné mais président de la république président sénégalais yëpp la loolu mooy li ma gëm gouvernement bi ñu fi teg du gouvernement Pastef gouvernement Sénégal la tant que dépassé wuñu paradigme boobu dañuy nekk ci encore ay coow yoo xam ni kenn du xam euh, fan lay mujjee et day tax du ñu mun a atteindre ce que j'ai toujours appelé le minimum consensuel national minimum consensuel national boobu dafa war a nekk ci pàcc yu bëri pàcc bi ci njëkk mooy jàng bi ak jàngale bi état war na mun a woo syndicat yi waxtaan ak ñoom pour un apaisement du front social. waaw ah, santé bi war nañu mun a woo travailleurs yi ak syndicats yi ñu waxtaan ceeg ñoom pour liggéey bi gën a bar pour sénégalais yi mun a am accès aux soins primaires de santé. pour remobiliser les troupes. comme pour remobiliser les troupes. que tout le monde se sente concerné li nga xam ni nag mooy écologie dama jàpp ni. tous les partis politiques et leaders d'opinion sans exception dañu war a tenir le même discours le réchauffement climatique est une réalité les campagnes de reboisement mm-hmm. dañ ci war a lancer wu ñun ñëpp et que loolu dafa war a bokk ci sa li may wax rek le mm-hmm. minimum consensuel national bu nekkee loolu mëntam quel que soit nguur bu fi mënta ñëw tamit situation bi dara du fi changer waaw ah. mais lu mel ni immigration clandestine ça constitue désormais un drame san fin parce que chaque jour ñu dégg ay bakkan yu des ci géej gi mais ni ci kilifa yi noppee dafa jaaxal ñu bëri aussi bien ñu fi jóge que ñii ñëw ndax euh, yàgguñu fi mais lu baree bari ci ay bakkan rot na fi euh, te fekk ñoom ñoo nekk ci boppu Sénégal mais gisuñu ci benn taxawaay benn discours boo xam ne en tout cas euh, rassurant na wala mu yaakaarloo ñu ne xëy na fi ak suba dinañu ci sàkk pexe. non man li ma ci gën a yéeme sax mooy tekk biñ ne teg daf mel ni yëguñu ko et pourtant maa ngi koy wax fan yële Donald Trump citoyen américain. ah oui il est citoyen américain il n'est plus président de la République fan yële bi ñu attenté à sa vie le président de la République dafa def une publication sur Facebook di ko massaw pour moins que saa sax président oh. Macky Sall defoon na fi ay tweet waaw loolu laa leen di wax bàyyi leen président Macky Sall c'est le passé non non je dis que ñoom ñëpp mais li ñu li xew tey moo xew démb c'est-à-dire ñii waroon nañu tirer leçon sax ci li ñu doon euh, reprocher euh, le président Macky Sall ci drame bi. waaw mais xam nga ñoom li leen di gêner. Mm. mooy dañ bi ñu nekkee dans l'opposition ñoom dañu ne woon bu ñu ñëwee dañuy arrêter immigration clandestine. ñu ñëw nag mbir mi gën a takarnaase mm. et ça a dû les gêner quand même pour ñu def ay sorti pour se prononcer là-dessus mais quoique une explication plausible ou pas jàpp naa ni Sénégal sénégalais ya ko fal mhm. bu ñu amee naqar bu toll ni li ñu dal fan yi ci géej gi ñu ñàkk ci suñuy ndaw président daf ci war a prononcé wu mhm. moo gën muy jéem a jéggaani fële di massawu Donald Trump ak américains yi mhm. américains yi faluñu la liggéeyoo pour américains yi États-Unis joxuñu la budget joxuñu la sécurité sénégalais yi ñoo la ko jox kon ay doomu Sénégal bu ñu faatoo président Bassirou Diomaye Faye daf ci war a wax. Mm-hmm. li tax waxu ci nag mooy li ma la expliqué parce que ñoom bi ñu nekkee en opposition loo wax ñu ne mën nañu xam naa tey loolu moo leen gêné mm-hmm. ba nga xam ni mënuñu ci wax. ñu ñëw gis na mënuñu ci dara alors beneen